politique yi fi nekk ne tey moom dama am na xar bu rëy ndax maa ngi dugg ci sujet boo xam ne neexuma mosuma ci bëgg a wax. lu parce que bu ma jàpp ne heure bi waroon na fekk ñuy wax sama mbokk yi ci àll bi seen néegu ñax yi. nga xam ne nawet baa ngi ñëw. Mhm. mu war a senn. ñu ngi waroon a wax ñi nga xam ne seen dëkk yi bu ñuy évacuer charrette la ñuy teg seen maladie. Mhm. Euh, donc man sujet yooyu moom ma doon gënal. mais li ñuy wax mooy yokk sobe ci atmosphère bi nga xam ne actuellement dafa diis ci sobe ndax euh, depuis deux ans ñaari at li ñuy wax Ousmane Sonko Adji Sarr ñaar ñoo xam ne ba ñuy defee couvre-feu ne bu kenn génn man mii nga xam ne ci état laa boog ñemee woon génn sama kër laa doon toog su may kii damay yurndu xool lan moo xew ci mbedd mi ñoom moment boobu la ñu génn dem def li ñu def moment bi nga xam ne dañ tere woon ne couvre-feu kenn warta génn ci la Ousmane Sonko kenn ci la salon boobu di fonctionner ba indi ñu lii yëpp vraiment ñoom tooñ nañ di ñaan suñu borom nag eh, mu gaaw génn ci lii ñu wax li nga xam ne mooy développement ñu avancé parce que wax dëgg yàlla li metti na ñaari am ñu wax ci lii metti na ci ñëpp xam naa yéen sax neexu leen leen mooy ñu wax leneen neexu fi kenn lu leer na ma. wax dëgg yàlla Sénégal ak fi ñu jógee ak nit ñu nawee ak fi ñu toll. benn xale bu jigéen benn politicien lëmbee réew mi. vraiment loolu euh, rafetul. Euh, leneen li nag mooy euh, man de dama gis ne réew dafa am nu muy doxe te Sénégal jafe-jafe yàgg na fi. mais nag lu mel ni ñu ngi koy doog a gis ndax ñun man dama jàpp ne euh, charte réew ñun ñëpp la war a tegu ndax réew mi moo tax ñun ñëpp ku nekk nga yegg si fi nga yegg si ndax moo ñu indil ay école ñu fay jàng moo ñu ubbil ay daara jaar ko ci sëriñ yi di ci jàpp ñu ciy jàng ñoo ñu ubbil hôpital ñu ciy faju ba mën a toll fi ñu toll état moo def loolu kon état boobu moom dañ ko war a jox cër jox ko cër mooy charte yi nga xam ne moom la tegu moom la teg ñu jéem cee jaar léegi nag man moom mbir mi mën naa yomb man de pour man mën naa yomb. ci naka. ni koy yombal mooy. Mm. Euh, justice daal yàgg naa ko wax loolu lay wax fii tey nag ñëpp di ma dégg man justice suñ ne convoqué nañ ma Samba wala ma demb tribunal man de su may état. dinaa jël sama disposition ba samay juge tribunal ba sécurité am fa soo ñëwee ñu juge la soo ñëwul ñu juge la buñ ne neuf heures bu jotee ñu juge la donc man gisuma ci lan moo war a indi coow su la neexee nga ñëw su la ndoxee dañoo même euh, am am na loo xam ne sax bu ko naree indi te loi bi ne da nga war a ñëw man daal mën naa laa may nga toog waaye nag gis nga luñ fa juge bu boobaa li ñu la war a teg nañ la ko teg. Mhm. man defe naa ne loolu bu ñu ko defee coow li dina jeex. parce que nag fii kenn moomu fi kenn. gis nga tribunal boobu ñuy bañ foofu la ñuy dem après di ut ay kayit foofu la ñuy dem bu ñu euh, sanctionné ñu dem defi appel donc tribunal boobu muy administration ba muy armée ba institution état yi nañ leen jox cër parce que institution yooyu moo fi teg docteur muy jàngale ca université ba. kon nañuy respecté fa ñuy jàngale noonu la ñu war a respecté fa nga xam ne foofu la ñuy àttee donc loolu mooy tax réew dox. d'accord ku ci ne nag am nga yoon. gis nga bu ñu la tegee loo xam ne àndoo ci ah mën ngaa dem def appel loolu aussi yoon moo la ko may mais bu fekkee ne ku ci ne da ne man liñ ma def li ñuy def neexuma man du ma du ma ci du ma ci jaar wala nga yore sa oto policier bi ñëw fii ne la yow non yoon bi dañ ko baare tey nii ngay jaar nga ne duma fa jaar man damay jaar nii par force loolu bu ñu ko defee. réew mi ci pax la jëm te ñun ñëpp kenn ñaanu fi réew mi dugg ci pax